asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di jaar bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si yéen tey nag dañu ñëw ak yéen benn sujet boo xam ne dañu xëy gis ko mu nekk euh, Petron Pay euh, mais balaañ ci wax dañ leen di ñaan ngeen abonné ci chaîne bi aussi di partage vidéo yi di xool aussi opportunité yi puisque tey dinaa xaw a attardé wu loolu tuuti ci loolu euh, en chaque fois ñun Sénégal dañu am benn habitude su fekkee investisseur nga en ligne euh, souvent dañuy gis benn société buy dox ñu dem rek jàpp ci société boobu dootuñu xool beneen société ñun Sénégal la plupart dañuy doxalee noonu. da ngay xam benn nit kooku nekk sawaay baax rek yow dootoo xool keneen da ngay xam benn liggéey liggéey boobu di dox rek yow dootuloo xool beneen liggéey doo xalaat jour bu liggéey boobu yàqoo wala bu amee jafe-jafe wala dara alors que investissement en ligne investissement bu risqué la ndax lenn moo ko waral mooy société yi ngay investir nekkuñu fii bitim réew lañ nekk yow nga toog fii war a jël sa xaalis envoyé leen ko loolu moo tax boo bu bu ngeen seetloo man yemuma ci benn investissement lii AX Trader la jamono yee passé doon na dox soo demandé paiement ñu fay la am na ñu ci investir pour l'instant mu ngi am problème lii Impero solution la pour l'instant mu ngi fay normal amul benn problème société bi la même chose bërki Dembo Ndiaye la judd yàggagul am na yeneen société yu fi nekk lii lépp pour vous diir que nit sooy sooy sooy investir da ngay jël sa xaalis nga dugal ko ci euh, ay société yu bëri bu benn bi amee problème puisque Petrompay lan la def nee nañu wax nañ ko ci zoom yi zoom yi ñu doon def nga xam ne par semaine ñoom dañuy def par euh, ay zoom di ci waxtaan di ci wax programme yi nga xamante ne moom la ñu kii mais man as assisté naa ay quelques zoom mais problème bi ma am ci zoom yi mooy la plupart ñoom anglais la ñuy wax donc soo fa demee aussi doo dégg li ñuy wax kon euh, ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ci réew francophone yi euh, bokk lu mel ne Petron Pay des fois pour ñu pour ñu assister ci zoom yooyu dafay am problème Euh, amuñu aussi ñun sénégalais amuñu notion lu bëree bëri di consulter suñu boîte email di xool ndax envoyé nañ ñu ci ay message concernant yenn changement yi mais en tout cas li xew mooy jamono yi ñu toll nii tey di le 19 avril 2021 Petrompay nee na moom paiement mi daf koy changer naka la koy changer mooy lan képp koo xam ne yaa ngi fa am compte le premier nga mën a retirer sa xaalis wala la quinze bu ngeen ñëwee fii financement nga dem retre soo demee soo demee retrait gis nga message message baa ngi nii waaw gis nga beneen message a ngi nii maanaam li ñu bëgg a wax fii ci ci ci français mooy dañoo bëgg a wax ne euh, bitcoin bi dafa yokku comme dafa yokk fii ñu toll nii loolu moom moo waral ñoom euh, dañoo yóbbu seen paiement yi chaque le premier ak chaque le quinze ñoom loolu la ñu wax ok waaw euh, kenn ku nekk am nga sa xalaat bu la neexee nga xalaat ci en tout cas man personnellement sama bopp laa xam gëmuma loolu waaw gëmuma loolu moo tax le premier pile damay récupérer suma xaalis duma xaar sax ñu dem ba ñëw su fekkee dinañ ko fay waaw gis nga soo ñëwee fii nga def demande de retrait bi euh, dinañ ko accepter mais en attente lay nekk donc euh, li may mën a conseiller sama mbokku sénégalais yi mooy gis nga bukki bukki loo ko yar yar yar loo ko jege jege jege bul ko dénk yàpp ñun dañu nekk ci ay réew yoo xam ne réew yu amul doole la soo jëlee pack pack bi cent dollars la borom investir tey dem na ba mën a récupérer cent quarante six dollars mais danaan da gis ñu bëri ñu naan non damay denc damay bàyyi damay bàyyi ba mu yàgg damay bàyyi ba mu yàgg damay dajale foofu xaalis bi alors que lii nekkagul xaalis il faut nit ñi comprendre loolu lii nekkagul xaalis xaalis bu nekk ci back office nekkagul xaalis mu ngi nekk xaalis ci jamono yi nga xamante ne def nga demande bi société bi fay la xam naa ne nag dina bëri ñoo xam ne li may wax ni du leen neex d'accord mais euh, su may wax aussi damay wax loo xamante ne man moom laay def moo xam Petronpay la moo xam beneen société la duma fa bàyyi sama xaalis mu toog fa lu yàgg duma ko def su ñëwee damay retirer ñoom bu ñu mënee denc man mën naa denc mais da ngay gis fi koo xam ne dafay am benn compte jël xaalisam dugal ci soo waxee moom muy dem di liggéey feneen di ñëwaat di ko defaat ci société bi waxuma ne baaxul mais li may wax mooy naka la benn société mën a toogee étudier benn affaire wax ak nit ñi def ak ñoom contrat. signante ak ñoom contrat ne la di lundi au vendredi soo demandé sa xaalis dañ la koy jox ñu toog di jour au lendemain su même société boobu taxaw ne la en raison de tell et tel et tel et mënatuma la fay tey le premier wala la quinze léegi tey bu fekkoon ne yow da nga jël sa xaalis yëpp nga dugal ko ci lii nga xëy suba soxla sa xaalis boobu même bu nekkee cent franc la même bu nekkee un million la sa xaalis nañ la fay sa xaalis mais duñu ko def dañuy toog di xaar man nag li may wax mooy sama mbokk sénégalais képp ku nga xam ne yaa ngi yor xaalis Petronpay fexeel nga retirer sa xaalis xaw ma nag ndax dana fi toog lu yàgg wala déet bien sur am na yeneen société yoo xam ne lu mel ne Wazir man maa ngi bokk foofu waaw lu mel ne lu lu mel ne Wazir société bii société bii ñoom di débit mais ñoom dañ ko njëkkee dañ ko njëkk a wax bi ñu bi ñuy ñëw tag lan la ñu wax dañu wax ne carrément boo fi boo fi ubbee compte le premier ak le seize du mois moom ngay retirer sa xaalis kon ñoom waxoon nañ ko au début ñun ñu accepter loolu kon lan moo tax Petrompay moom xalaatul woon loolu toog ba léegi ah di wax naan ay soo dugalee le premier ak le quinze ngay retirer sa xaalis yeneen jours yi ñu garde foofu sa xaalis c'est pas du tout normal man jàppuma ne lu lu nekk yoon la puisque suñu xaalis ñun ñoo ko moom du ñoom ñoo moom ñun ñoo ko moom bu fekkee ne li engagement bi ñu waxanteeg ñun dem nañ ba mënatuñ ko respecter li gën mooy kenn ku nekk ñu delloo la sa xaalis ne la bàyyi nañu puisque mënatuñu respecter engagement yi ñuy signante ak yow bien vrai que li vidéo bi may dem du neex leader yu bëri Sénégal mais man dama ngay wax puisque société bu jëlee engagement ne dafay liggéey ak yow dafa war a respecter engagement yi mu defante ak yow dimbaliwu la société bi dimbaliwu la jàppalewu la business la ñoom dañuy liggéey da ngay jël sa xaalis jox leen ñu jël sa xaalis ñoom liggéey ci jël ci gain yi jox la donc ñoom aussi dañu am lu ñu res war a respecter suñu diggante ak ñoom waaw bon tey loolu laa bëggoon a indi maa ngi jéggalu ñëpp waaw di xaar tamit xam naa saaga yeeg insulte yeeg yooyu mais sa pas grave amul problème ñu def noonu ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf